Nous xalaat suñu taxawaay ci bu rek xam nga mais xam nga ji si suuf nañ président bu bees tas institution yàgg mu ko Abdoulaye Wade def na ko def na ko dañu wax institution les passent les institutions ba ca tegu mooy institution ba au conseil de culture avons diine yëpp ak tane chrétiens ak ñaari ngir am nga bu pour indi assemblée kon ci institution consultative bi mel ni boobu ci lañ leen dugal waaye régime bii nga xam dañ leen taxé de salafiste wala dañ leen dañuy xeex tradition religieuse yi am Sénégal bët dem rek la ñuy attaqué fii bi ak école daara catholique yi te teguñ ko fenn lu ci matadi ak doy bi kon ñooñu li ñu bëgg mooy déconstruire parce que am na yeneen mbir waaye dañuy fàtte ñoom bu ñu fi yàgg bu bëree ba bëri fukki at la bu néewee ba néew juróomi at la te bu fekkee dañu nekk ci réew moo xam ne ku faru ne damaa def lii ku far keneen ku faru ko loolu loolu du am bayoo loolu du tax a am manoore loolu du tax a am histoire taarix mu ne mais yaakaar naa parce que ñun ñu leen bàyyi budget wu sept mille milliards juróom-ñaari junni milliards ñu ne te dama ne démocratie yi dafa am coût waaye institution pour liggéey réew mi la wax naa la léegi ne la au conseil de ak conseil territorial environnemental syndicaliste yaa ngi ci artisan yaa économiste yaa ngi ci patronat banque yi syndicat yaa ngi ci force vive yëpp dañu ci dugal ñu ci liggéey ak kilifa diine yi yooyu léegi nag nga bëgg a wax ne ñooñu bokku ci réew mi duñu àddu ci réew mi assemblée ak gouvernement la ko doon ay waxi càggan la li ci gën a tax nag mooy président bi ko sàkk sokk sàkk yaakaar naa ne du tey bakkanam ñàkkul premier ministre bi mu gën yóbbu ci mu wor serment constitutionnel ndax ba mu ko waxee ne daf def sa discours du président même ci beneen anam bu mu dem assemblée

lii di di di tripoter constitution bi dafa war a dakk ci Sénégal réew yu bëree ngi fi am ay institutions xam ni ñoo mag njiit yi nekk doon ko liggéey mën nañu am journal kan kon moom mii conseil social boo ko mag au conseil mag na xale yoo xam ne ñu ngi politique donc dama jàpp ne euh, yi muy def nii euh, vraiment li mu tekki mooy du ñu ay homme d' état ay homme de de et d' état la. résolution bi nag wax ne foofu dafa moom. constitution boo ko jox président la bi ñun sax bi ñu nekk ci nguur gi dañ jàppoon ne euh, waroon nañoo dindi waroon nañoo may président mu bi pour lu matu sax ñaari at mu tas assemblée assemblée bëgg comme mandat bi léegi juróomi at la mandat wu député juróomi at la ci benn benn juróomi at yi ñu def ñu dajale doon élection yëpp moo gën nga faru juróomi at ci biir juróomi at yi nga war a am ay élection yu bëri ci biir daf lay taal rek daf lay dafay dafay dafa métti waaw léegi nag ñun suñu woon dafa ñun ñoo ndax bu bëggoon mën nañu def débat d'orientation bi développé léegi ko mën nañu ko wax dana loi de finances rectificative moom moo bëgg a lay pour Sénégal ne leen ah gis ngeen ko ba mu bëggee wàññi euh, jaxanal jëf euh, bi dañoo bañ. non non non ñun fii assemblée nationale dëkk fi nekk ñu ñu far ci moom ak ñu farul ci moom xam nañ ne lépp dañ koy waroon jaaraat te dañoo bëggoon deux mille vingt cinq gën ngaa sori mu am élection boo xam ne nii tous les ans dañuy méngale élection présidentielle ak élection yeneen wala da ngay am 6 mois a am majorité wala liggéey waaye kii ma bu foogee ne bu demee élection bi da nga am majorité nax na boppam nax na boppam xam nga ko woteel am na ci ay socialiste am na ci waa am na ci ñoo xam ne nii candidat yeneen sax bëggoon woteel waaye yàkkamte ak bëggoon a tàqalikoo ak régime benn bokk yaakaar Macky moo waral ñëpp wote wote sanction léegi nag bu ñu ci élection dëkk bu ne gox bu ne ak la nga gëm député bii moom mooy bi ma gënal ci réew mi te jàpp naa ne euh, li tax Ousmane Sonko ñëwul jàkkaarloo député Benno Bokk Yaakaar yi daf ci xam ne am na fi ay kàngam yoo xam ne nii du ñu saay-saay du ñu caaxaankat du ñu tapalekat am nañu xam-xam am nañu jaar-jaar te am nañu expérience waaye ñoom Bassirou Diomaye Faye ak Ousmane Sonko seen régime dañoo am benn sikk sikk bi mooy lan mooy amuñu jaar-jaar amuñu expérience amuñu humilité ba noppi ba noppi Euh, amuñu culture générale xam nga nag nit ki nag moom euh, du bëgg a dem mooy tax a dem mën a de tax a dem waaye daal moom laa leen wax régime mu tappale taafantoo ak ruse ngeen ma ne tappale ak taafantoo mën na laa joxum réew waaye tappale taafantoo mënul yor réew ma yokk ci ne ci tubaab la ruse ça amuse à un mais la ruse s'use et la ruse use